الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي رضوان وتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلدي نوغلين دي di nuyu sëriñ Cheikhouna mi nga xam ne mooy boroom bés bi tey di magam sëriñ Bassirou Lo di nuyu mboolem mbokk yi fi nekk yépp di leen sant bu baax ci jataay bi waaye di leen sant bu baax ci lii ngeen yendoo fa tabaarakallaahu te mooy lu gën li gën ci li nit ñi yendoo fa tabaarakallaahu muy alquraan noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Moustapha moom Cheikh Massamba moom mi nga xam ne mooy boroom kër gi moom la fi yàlla teg te mu mate ko sëkk nee na mi ngi leen sant bu baax mi ngi leen di gërëm bu baax a baax fa tabarakallahu mu di leen xamal ne fépp foo xam ne kenn ci njaboot gi xewle na fa lu mu fa mën a xewle fa tabaarakallaahu day mel moom moo ko xewle ci loolu mu ngi leen ci gërëm di leen sant bu baax di leen andi itam nuyoo njabootu sax ma sàmba gépp bàyyiwunu genn kër fa tabaarakallaahu lii bu dee ndam ndamul Cheikh ma sàmba la waaye bu dee ndam ndamul ñi fi nekkal seex ma sàmba lañu ñu tabaarakallaahu ah, di leen jot itam sunu ñaan ak sunu nuyoo ak sunu siyaara ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy xalif général des mourides te yàlla dogal bi mu doonee xalif alxuraan feeñ na fi feeñ boo xam ne am fi taxawaay boo xam ne benn taxawaay yeesu ko fa tabaarakallaahu te loolu dara waralu ko lul pas-pas bi mu am ak yenn ji mu am ak bëgg-bëgg bi mu am ci alquran waaye bëgg ko sëriñ Touba waaye bëgg ko képp ku nekk ci saraatal mustaqim kon yàlla na ko yàlla fayal yàlla na fi yàgg lool te wér nun day xam nan bu baax a baax ci moom dara ndax jamono yi nga xam ne ñoo ngi jàng day ci mbulkayal mu nekk fa taxawaay bu rafet ba mu amoon ci njaboot gi amoon ko ci donga yi jàng amoon ko ci alquran ak bëgg-bëgg ba mu ci amoon tey jii yokku ci dara yokku ci dara na mu meloon rek noonu la mel ba léegi fa tabarakallahu ci bëgg lu baax mën a teral kuy def lu baax mën a teral kuy jàng alquran mën a teral kuy jàngale alquran fa tabarakallahu yal na yàlla guddal fanam te wéral ko te kàttanal ko di leen nuyu itam ci njabootu sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne tuuru njabootu sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne fa tabarakallahu moom la tuddee daara ji te mu mate ko sëkk fa tabarakallahu lépp loo xam nit am na ko ci lu baax di ko tudde sëriñ Mahmoudan lii moo ko ca gënal lépp loo xam ne nit def na ci lu baax di ko sant Mahmoudan baa mu tudde ko ko lu mel jàkk wala juma wala yu mel ne moom yépp fa tabarakallahu la nga def moo ko neex ci lu wér kon sëriñ Mahmoudan xolam sedd na tey fii bég na fi lool mu wóor ko ne ay sëtam ñoo réalisé lii fa ñoo def alquran ci dënnu yi fi jàng yëpp kon fa tabarakallahu gërëm leen sëriñ sant na leen waaye nag it du lu mën a ñàkk ndax dox yi doxinam noonu la demee woon danaa koy faral di wax lu baree bari te la ma jublu mooy ñu xam Serigne Touba fi ko alxuraan toll loolu mooy ci laay faral di wax ci loolu bi mu ko jëlee jox ko sëñ Samba Yip Jóob mu jàngali ko alxuraan ba mu mën alxuraan amee manin wu rafet ci diir bu néew mën a bind mbind mu rafet moo xam ne daawu ku ñu ko tëkkalee ku dul sëriñ Modou Moustapha ci mën a bind sëñ Samba Ayib ànd ak moom ñëw njaareem dem fa soxna Aminata Jobe ñu ànd dem ci borom Touba mu jël kaamil ba xool ko lépp ba mu àgg mu rafet lool wér lool wow koŋ fa tabaarakallaahu amul dara lu ci ca mu ne ko Masamba ah, mu ne ko Masamba Anta Ceebu yaa def lii ci sa jarbaat bii mu ne ko waaw incha allah maa ko def ci coobara suñu borom mu ne ko day baax nga cib jarbaat mën ngaa taxawu ab jarbaat def nga ci moom loo xam ne moom rek lañu bëgg kuy bokkoo nit nga bokkook moom ci loolu kuy jàpp nit nga jàpp loolu ci nga jàpp loolu ci moom kon nag yow mahmadan wàcc nga fa tabarakallah ku def nii nga def maa la jur ku ko deful seq maak yow dara loolu la mu ca jublu mooy dafay wane ne alxuraan dafa rëy ci moom koo xam ne mën na ko rek am nga ngërëmul sëriñ Tuuba te loolu kenn ku ne war na ko xam kenn ku ne war na ko jàpp xam ne loolee mu waxoon sëriñ Mahmoudan yemaliwu ko ci moom da koo jàllale ci xeet ci askan bi yëpp ak ci bokk yi yëpp kon fa tabaarakallaahu kooku buñ ko tuddee bis bis la boo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko surtout nun ñi nga xam ne noo ko fi nekkal nu béggee ko lool sant ci lool ñaan ci yàlla mu sax fi ba at mu ne ab lim mën a mokkal alxuraan ci béréb bii kii ñu koy defal itam kii ko def itam nag muy Cheikhouna ñu koy gërëm bu baax ndax lépp luy makarimul akhlaq mi ngi ci moom nit ku baax la nit ku tedd la nit ku jub la nit ku amuk taalibe la waaye nit ku dal la nit ku amuk yëg ci ay bokkam la waaye nit ku amuk yëg ci ay kilifaam la kon suñu cheikh naa yal na yàlla dolli la sutura yal na yàlla defal la tawfiix yal na yàlla dolli la xeewal daara ji yal na yokkoo yokkoo yokkoo yokku ba ba mel ne daara yi yàlla mën na ko ko yàlla def te lépp ci pas-pas rek la nekk te pas-pas boobu mi ngi ci yow kon yàlla mën na laa dimbale ba mu àgg foo xam ne dana kawe sa njoor ci daal di jël islam gannaaw bu loolu wéyee itam ma di leen nga ci suba bi ma jotee daf ma wax ne day loolee de maag yow noo fa waroon a nekk ànd dem ca ak njaboot gépp waaye bu ma fa tabarakallahu sëñ Abdoulaat nee na mi ngi lay sant bu baax mu ngi lay gërëm bu baax di santit seen wéyjur wa nga xam ne moo ko boole woon ak yéen muy sëriñ Malick di lépp sëriñ Mahmoudan bokk ak sëriñ Mahmoudan wàllu gu nekk fa tabarakallahu ci bokk gi mu doonoon koo xam ne itam ku bëggoon lu baax la ku bëggoonu taalibe ku fonkoon alquran la ku fonkoon sëriñ Touba la bëgg sëriñ Basiiru lool fa tabarakallahu ba yemaliwu ko ak dara kon sëriñ Malick fa mu nekk ci ca barsàq bég na tey jii bég moo xam ne gëj na koo bég fa tabarakallahu te na ko yàlla fayal di darajey lislaam yal na li nga xam ne seen woon na ko ci yéen fa tabarakallahu mu am ko na mu ko bëggee te yéen a ngi ci yoon wa te ku nekk ci yoon dara jëw ko wax lu baaxul rek kon fa tabarakallah ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gëram bu bah. baax serigne abdullah neena mom itam wax deug yalla amul ben lu len lu mu leen mën a wax lu dul ma ngi leen sant bu baax di leen gërëm rek ndax diirub li ngeen nek ci ay loxom fu mu leen tek fu nek jaar ngeen fa lu mu leen def lool lu ne def ngeen ko fa tabarakallah ba yalla dogal tay lih xewé ci yeen kon mi ngi leen ci gëram bu baax leen ci sant bu baax leen ci ñaanal yàlla bu baax a baax leen xamal na itam alxuraan moom lu nit di yëngutu lu nekk mooy la ca ëpp solo li mooy wax fa isaa xuri alxuraan fas tàmmeew la wu ansitoo la xamoon na ku déglu alxuraan kon sunu borom dana la yërëm kon sunu borom dana la bëgg te dana la xemmeem itam kon alxuraan dafay loo xam ne mooy xaaye ci bi nga xam ne moom la ab jullit war a jëm waaye mab mabda ba mooy nga gëm yàlla topp yàlla nangoo jaamu yàlla doon mu kàllaf jël say njaboot dugal ko ñu jàng ci daara ñu jàng alxuraan ba mën alxuraan loolu mooy mabda u gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ba nag mooy mën alxuraan moom fa tabarakallahu kon yàlla na yàlla fay gone yi fi mën alxuraan ñëpp yal na yàlla guddal seen fan lépp yal na yàlla bëral leen yal na fi ñeneen ñu baree bari topp ci ñoom fa tabarakallahu kii ñu tuddee bis bi nag di sëñ Mor Diop kenn ku ne xam na ko xam nañ pas-pasam xam nañ ni mel ci alxuraan xam nañ ni meloon ci bokk gi kenn ku ne bi mu fi jógee ngay doog a xam ne sëñ Mor Diop nii la toll woon kon yàlla ko yàlla fay li mu doon yëngutu ci alxuraan lépp yàlla na ko yàlla barkeel waaw sëñ Moustapha Diouf mi nga xam ne moo nekk moom it taxawaayam ci alxuraan waaye taxawaayam ci lislaam waaye taxawaayam ci taalibe ñu ngi koy gis bu baax di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax barki démb rek laa mujj a toog ak moom daan ci lu demee noonu ñu sant ko lool sant ko lool te fekk mbooloo ma ma nekkoon ñëpp kenn ku ne foofu la xolam nekkoon ci moom kon sëriñ Moustapha jërëjëf yal na yàlla dolli la sutura bu baax yal na yàlla doon la xeewal bu baax may jéggulu nag yeex gee ñëw ndax dama waroon bi ñëpp ñëwee rek ñëw nekk ndax amuma lenn lu ëpp lii lenn lu ëpp alxuraan kon fa tabarakallahu suñu yeexee ñëw ngant la waaye du suñ pas-pas du suñu yéene du suñ bëgg-bëgg suñu bëgg-bëgg mooy lu ngeen nekk ñu nekk seen gannaaw lu ngeen def ñu bokk ak yéen ko lu ngeen di doxal lu nekk itam ñu nekk te di puus gannaaw kon ngi leen di gërëm bu baax maa ngi leen di sant bu baax leen ñaanal yàlla bu baax di ñaan itam jataay bii yàlla na suñu borom def yàlla doon jataay yu yiw boo xam bi ëllëg ak si biir kenn du am jataay bu ko ëpp lépp lu fi génn yàlla ngerte di ngerteel lislaam ngerteel yoon bi di mbégum Sëriñ Tuubaa di mbégum Seex Masàmba Mbàkke kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.